What up guys, what up guy? what's up everybody, so <laughs> eh, i guy. a guy Eh bëggee ñëpp bëggee ñëpp bëggee ñëpp ah tey waru woon raison quoi parce que li may dama Before going faster, uh, allow me to introduce myself I go by the name of Malachon and I'm from Senegal, West Africa, Rio City, my town I <laughs> eh, got from Belgium, I got you Bon sama gars yi du ma Do my du ma ah Bon li may xel tey ji mooy un accident qui s'est produit hier tu vois sur la nationale il paraît que daa am benn euh, camion bu saaraan def quatre morts fii ñaari scooter dal ci beneen oto Saint-Ville euh, moom tant de morts quoi Saint-Ville te loolu noonu bu ñu xoolee loolu noonu c'est des faits répétitifs quoi tu vois mënu ma concevoir chaque fois chaque fois oto yi ñëw di saaraan fekk ay maire yu jaay ñu kii leen di yor que maire yi fi ñuy taxaw sax di jaay du yoon dañoo daal loolu ñu doon quoi war nañu nekk si nekk ci kaw raay di jaay comme à Thiaroye nekk ci kaw raay di jaay ba train di ñëw di feri ne di leen noonu quoi loolu moo war loolu moo yoon léegi loolu bu jàllee ba pare camion yi Saint-Ville chauffeur camion yi chauffeur yu Ndiaga Ndiaye yi Saint-Ville ay oto yi amul frein Saint-Ville mën na duñ def visite technique Saint-Ville fekk nit ñi ci appal leen ray leen affaire doon quoi tu vois loolu du yoon quoi ba pare bu ñu ani priorité punition bi am foofu noonu ah mais loolu yëpp garaawul quoi parce que loolu yëpp mooy li ma rek c'est à l'image d'en haut quoi tu parce que ni nga mel si kaw rek noonu la ñuy mel suuf boo la neex nga def isaan fi ku la nga tëj def lu la neex isaan fi ngeen baal maa quelque sorte tout le bordel en haut def lu la neex mais tamit bordel boobu may répercuté wu si suuf rek mooy waral ay oto yu fiir euh, ay quatre personnes rey ay ñoo xam ne solo seen njaboot parce que amul punition c'est à l'image d'en moom lii na ci kaw rek mooy rogalaat ci suuf quoi pour man lii na ci kaw loolu mooy rogalaat ci suuf amul there is no secret is en fil des permis des permis qui sont délivrés n'importe comment tox sa kër jox la permis respecté wu code ah tux say yamba mandi dawal fekk lu la def lu la neex boo demee ay mbokk yéeg jóg ñu grâce grâce la grâce présidentielle wala nga tëdd deux mois nii rek lay demee ni rek lay demee de c'est à l'image d'en haut boo defee bordel kaw def lu la neex ci suuf rek boo neew lii ngay def léegi lii def la neex moom chauffeur yi mu feeñ ci chauffeur yi feeñ ci ambulance yi feeñ ci ni ñuy occupé place publique lépp noonu lay mel rek c'est à l'image d'un woo rek sama gars yi loolu woon di ko jaale seen mbokk yi ñu gaañ ak yoonu affaire moom métti la quoi vraiment te c'est des faits yoo toujours mooy am te ñuy def loolu après leen di bàyyiwaat fa fa chauffeur ba daw na defaat tuuti génn na deux mois bu génnaat fi oto yi amul frein visite c'est n'importe quoi